وورمد البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم nu ànd ñëpp di naqarlu di mettitlu rey ga ñuy rey jullit ya ca Palestine waaye benn benn jullit ya dëkk biir Israël loru gañ cay loru ñu di ko naqarlu ñaanal ndam waa Palestine ak mboolum jullit ya fa ne te ñaan yàlla mi nga xam ne moo man te am kattan te tëliwut dara mu jox doole jullit ya fa ne te nasaxal pexe noonu lislaam ya fa ne te loolu nag jullit bu ne sañ na ko ndax jullit bu ne jullitey mbokkam donte sore nañ am réew donte bokkuñ ay làng donte bokkuñ ay xeet na innamal mu'minuuna ixwa kon lu ca war fa aslihu bayna axawaykum fa aslihu bayna axawaykum nag mooy lu ko dal dal la lu metti ci moom metti ci yow loo am bokk moom kon yëg-yëg bi ñu war a yëg suñ mbokkum julit mu soreek nun lu ko dal ñu yëg ko ba mel ne jenn jëmm joo xam ne boo laalee loxo bii tànk bi yëg ko loolu mooy li nu alquran digal mooy li nu yonent bi sallallahu jàngal kon nag bokki jullit yëfa ne te ngeen rey rey gu métti ñu ngi koy naqaru di ko métteelu amuñu kàttan waaye nag adduwaa silaaxul moomin kon nun ñëpp nan maase di ñaan rek ñaan yàlla mi man ta am kàttan mu nasaxal pexe yéefar ya ña weddi yàlla noonu yàlla ya te doole jullit yëfa ne moom mi man lépp mën na ko tëliwut dara kon nag kenn ku ne sañ na la ko soob rek ci tur yàlla alquran nu mën a wooyee boroomam rek ci tudd yàlla gum man rek boole julli ci yonent bi ñun yaakaar Sëñ Tuubaa it war nañoo bàyyi xel xasida yi Sëñ Tuubaa yi boole ko ci lu mel ne faraj bi jaahil Mustafa an ummati ak lu mel ne wakaana xaqan ak lu mel ne matlabu shifaay ñu ñaane leen rek yàlla musal leen te aar leen te dooleel leen te may leen ndam ndax Filistin moom diggam ak Sénégal ñëpp xam nañ ko waaye diggam ak yoonu murit it yaakaar naa umpul ken ñëpp xam nañ relation bi ñu am bu rafet rafet digganteem ak seen digg ak Touba waaw moom umput kenn kon nag ab jullit lu dal moroom jullitam da ko war a yëg waaye rawatina ci nag ab taalibe murit ku safab sëriñam safab dëkkam di Touba loola dal war na ko gën a yëg loola tax nag noo ngi maase ñun ñëpp di leen ñaanal moom a kàttanu wax ci turu mbooloo mu yaatoo yaatu waaye sa ñaay sama turu bopp ak turu Asmadiya bii nga xam ne groupe la télé la euh, technologie yu bees yëpp daje na ci maa ngi ciy ñaan ñi ci aju ñëpp ñu ànd ñaanal leen ñu am ndam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak daraja Seexul Xadiim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم